internet Sénégal 7 ñu ngi leen di di leen jox seen wàccuwaay di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen kóolute di ñu topp ci suñu ay programme ñu amaat mbégte ak rek comme ni ñu koy faral di defee euh, saa su nekk bu actualité bi tolloo ci fi nga xamante ni euh, lu ama am solo la dinañ ci dalal ndaanaan boo xamante ni yaakaar naa euh, duñu ko présenté askan bi bu ko defee rek ñu fas yéene waxtaanee réew mi nee naa leen jamono ji ñu ngi ci campagne électorale bu ama am solo bëri na loo xamante nii xew na ci loolu la fas yéene waxtaane bu baax a baax mbirum recours bi nga xamante ni moo amoon la ca euh, cour suprême dinañ ci ñëw ak li nga xamante ni moom la réew mi soxla nag euh, pour ñu dem ci li nga xamante ni moom mooy l'essentiel du sujet mais duma ci weet benn yoon ndaxte fas yéene naa ci ànd ak ki nga xam ne moom mooy euh, sama confrère muy Djibi Sakh Diony mais aussi dañ fi am invité bu spécial mais damay denc invité bi daal di nuyu Djibi ñu doog ñëw ci moom Djibi nuyu naa la ci réew di am mbégte également di toog ak sa invité du jour. merci beaucoup donc tey ki ñu fi dalal nag ndaanaan la ci biir ndaanaan yi nee naa la euh, mën nañ ko jàppee comme ki nga xamante ne nii tey moom moo am. juróom-ñaari at ci biir suuf muy Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yaakaar naa bu waxee ren déwén lay waxaat waaye ki ñu fi dalal xaw na méngoog lool jikko jooju ci moom ndaxte euh, dafay faral di bokk ci ñi nga xamante ni bu réew mi tolloo ci yenn tolluwaay yi dafay génn daal di joxe kàddoom waaye ndaje boo xamante ni rek dajaloo nañ fa ngir defar wala nas wala nocc nu ñuy génnee ci li nga xam ne moom mooy guuta googu dina ci taxaw bu baax a baax ak taxawaay bu am am solo waaye lépp luy démocratie wu réew mi xeex na ko ba tàyyi ngir doomu aadama mën a am àq ak fa muy euh, Cheikh Ahmadou Bamba Dieye yaakaar naa bu ñu ko waxee rek euh, doomu ndar-ndar yi xam nañ ko waaye Sénégal àdduna wërngal këpp xam nañ ko président maa ngi nuyu. la ziar delloo ziar. Euh, <laughs> waaw ndax loolu moo moo gën a moo gën a yoon di ko ko wax nag si jamono sooru Ramadan. <laughs> surtout loolu di jéggulu ñëpp nag. di leen déwénal di leen balwaaq mhm. te di bëgg loolu si di am jotaay ak yéen di nuyu mbooleem téléspectateur u Sénégal 7 mhm. yi nekk ci biir réew mi ak yi nekk ci bitim réew mi mhm. et c'est toujours un immense plaisir mbégte bu rëy la ci man di seq ak yéen waxtaan jërëjëf ñun aussi am nañu mbégte bu baax a baax dalal la ndaxte nag askan wi namoon nañ la gëjoon nañu la gis mais tey nag dinañ jàkkaarloog yow bu baax a baax alors nga bokk ci candidat yi nga xamante ni nii euh, ñoom aussi euh, bëggoon nga dagan baatu askan wi niki noonu euh, nga daal di def sa adhésion ci coalition Diomaye président mhm. te ku wax Cheikh Bamba Dièye wax ci profil bi ak bëgg-bëggam Sénégal ak fi nga xamante ni loolu la yéene réewum Sénégal tey boo jëlee décision boobu tey lan nga koy lal taayee. li koy lay taayee rek mooy sabab bi ndax man sama sëriñ di daf ma définiral lan mooy politique nee na politique mooy sàkki ay pexe yu dagan ngir jariñ si askan je pense que bu ñuy wut patriote di wut citoyen modèle normalement acteur politique la war a doon mooy ki nga xam xamee dafa war a jël énergie mi yëpp waroon ko consacrer ci boppam jël ko def ko à la disposition des citoyens élection présidentielle nag di lu am solo ci réew ndax foofu la ñuy beesalaate xalaat yi foofu la ñuy xoolaate projet yi foofu lañ leen di confronter foofu aussi la ñuy tànne euh, njiit yi nga xamee ni am nañu yéene ak euh, ki gën ci Sénégal ci gis-gisu sénégalais yi. Mm-hmm. pour ñu mën koo dénk réew mi pour juróomi at. Mm-hmm. Euh, suma profil wax nga ko léegi suma jaar-jaar aussi war na maa may bu élection présidentielle jotee. moo mm-hmm. war a mën a bokk si ñi nga xamee ni porté nañu projet boo xamee dañ koy teg ci kanamu sénégalais yi. Euh, jéem nañu nag def suñ suñu kemtalaay kàttan def si suñu fulla suñu fayda mais Sénégal léegi xam nga dafay soox soox ci wàllu démocratie soox si wàllu justice soox si wàllu transparence équité état de droit ba nga xamee ni ki suñu histoire Euh, modèle bii ñu am ren jii si ñu ñu toppee élection yi ak ni ñu jëlee candidature yi ni ñu examiner parrainage yi ni ñu dàqee ak ñàkk kersa gi ci ànd euh, doon na loo xam ne xajamal na bu baax a baax processus bi mhm. ba tey sax bàyyiw ñu ndax moo ñu topp ba fi tey jii mhm. et c'est pourquoi élection présidentielle dafa am solo lool ci réew te mënul ñàkk wala daf nee na nag jéemtale gàcce deesam bu ñu demee ba nga xamee ni yegg nañu foo xamee ni euh, jàpp naa ah, je ne sais pas ndax ëllëg yàlla rek ko ko xam ni bëgg bëgg bëre bañ bëre euh, te ñuy doomu réew mi am xalaat ci réew mi te sénégalais yi nangul ñu ko euh, dina yenu maanaa lool képp koo xamee ni yaa ngi projeté wu ci Cheikh Bamba Dièye di am xalaat ci moom yéeneem bokk ak sa yéene je pense que ni dina yanu maanaa ñu mën a seet ci ñu fi nekk ci candidat yi seet ki nga xamee ni jàpp nañ moo ñu gën a jege si suñu ligne ak si suñuy position ak si suñuy yéen a jëm ci sénégalais yi ñu jëkk jël suñuy tànk si suñu fulla ak suñu faayda dem fekk ko jël suñu alal def ci mhm. jël suñu jot def ci mhm. ànd ak ñi nga xamee ni dëgg-dëgg fu ma ànd ñu ànd fa fu ma dugg ñu dugg fa ak man mooy mhm. suñu ay militant ak kii responsable te macha allah ci réew mi ak ci bitim réew mi ñu tënk leen ñoom ñëpp ñu àndandoo dox ci def ci suñu kemtalaay kàttan parce que ce dont il s'agit tey jii mooy Sénégal ak ëllëgam man am naa si lecture bu particulière parce que moi j'estime que ni euh, mode xeetu souffrance bu nekk ci at yi passé sénégalais bi souffrir nañ ko laaj nañ ko deretam joxe na ko laaj nañ ko jotam joxe na ko laaj nañ ko yaramam joxe na ko jëlee na ci ay blessures ay laago ay destruction violence boo xamee ni méngoowul ak histoire réew mi ba perturber benn nit ñi te dëgg-dëgg bu ñuy wax élection c'est juste pour trouver les moyens pour améliorer condition de vie au Sénégal yi te loolu dafa ma amal solo lool lool lool ba loolu moo tax képp koo xam ne daal sama choix euh, di nga xam ne toujours choix de raison la choix boo xam ne dafay dëpp ci intérêt réew mi ndax man ganaaru kenn nenu ma alhamdulilahi rabbil alamin su ma demee ba def choix c'est que natt naa li ma war a natt et compte tenu situation au Sénégal sans préjudice yeneen candidats yi seen valeur ak seen ñàkk valeur damay seet rek fi nga xamee ni jàpp naa ni moo gën a équilibré mm. moo gën a juste moo gën a yanu ci volonté bi ñu am pour transformer réew mi soppi doxalin yi soppi taxawaay yi ndax man dama bokk si ñi nga xamee ni tey nañu ci méthode bi ñuy defee politique mm. mooy depuis indépendance ba fi tey koo gis muy yëngatu si politique ñaari mbir yi moo koy tax a jóg wut nguur ak nguuru buy wut nguur lu Sénégalais bi bëgg rek lay wax pour benn capter mécontentement wam boo ko xasee ba am ba sénégalais bi jox ko bopp boo ko sénégalais bi voté mu folu rek mu indi beneen xar kanam soppi doxalin am nañ ko mille mm-hmm. mu indi xeexu mille 2011 mm-hmm. ñu am ko 2021 mu jàpp ñu 2021 ba 2024 bi ñu am ci naqaru xol tiis tiis ak métti boo xamee ni tey jii le tissu social dañ ko fracturé fragmenté ko mm-hmm. ay fossé yu jiggi doyo moo dox ci diggante sénégalais yi dëgg amatul solo li am solo mooy fan laa bokk maag ñi ma àndal lu ñu wax noonu la ku àndul ak man loo wax du noonu et je pense que ni nous sommes une nation une histoire te dañoo soxla tey jii nag ñëpp dellu dal ñu delloo siwaat xel yi delloo siwaat xol yi am jëmm joo xamee ni dina incarner rupture boobu pas ci discours bi mais si jëf yi ci engagement yi ci jaar-jaar yi ànd si ak sénégalais yi ñu dàq fa yoon par parparloo tabax suñu réew parce que am nañu yeneen défi te wolof nee na gumba war na tal leneen lu dul tëbi te tey jii suñu problème développement la tudd emploi des jeunes sécurité ak suñu souveraineté bu ñu war a assumer dans le sens jël suñuy ressources utiliser ko ñun sénégalais yi mu jëriñ doomu Sénégal yi maanaam alalu réew mi koom-koomu réew mi. Mhm. jëriñ doomu réew mi en priorité. sànq maa ngi dégg ci say wax nga ne sénégalais bi donc dund na lu métti ci ci at yi ñu génn ci ci dund lu métti tey ji wala démb ñu dégg Ousmane Sonko muy wax ne euh, ñoom bu fekkente ne te foofu nga bokk allié nga yaa ngi ci coalition Diomaye président donc fi nga bokk kenn ci ñoom mu ne bu fekkente ne jël nañu nguur gi du am fayantoo waaye dina am justice loolu ñun ñun sénégalais lambda bi ban dégg-dégg lañ ci mën a am. dañu war sant yàlla. bu baax a baax a baax bu ñu demee ba dégg kàddu yu mel noonu ndax kàddu yooyu mooy kàddu kilifa ndax kilifa day tëdd njaaxaanaay Cheikh Ablaye dafa ne ma ñaari mbir yi mooy wute politique yi benn politique bi day defar kii nag keneen ki day defal mhm. defal mooy lalla rasul neex ma ma wut dara loo xamee dama ko koy jox ci lalla lay yem ba ma ko joxee lan laa siy jëriñu ma ñàkk ko jox lan laa siy loru. Mm-hmm. defar nag mooy loo xam ne ba ma ko tegee jibi Lalla Cheikh Bamba Moodu Serigne Paate. Mm-hmm. Demba ak Kumba ak Faatumata ñëpp siy jëriñu. Mm-hmm. sans préjudice ndax ànd nañoo man ak ba a ànd ak man. alors bu ñu tollee ci jafe-jafe yi nga xamee ni génn nañu ci conflit goo xame ni. lu war a mat juróom-ñaari fukki sénégalais ñàkk nañ ci bakkan baa lu ko ëpp. ñu toll ko ëpp fuuf Mhm. am ci ay blessures. Mhm. alal ju bare bare yàqu ci suñu économie jël ci ay point de retard yu jiggi dayoo. Mhm. maanaam su même suñu der ci biir réew mi ak ci bitim réew mi yàqu ci ba nga xamee ne tey jii bu ñu naxantewulee xam na ni Sénégal ba ñu doon wax démocratie nekkatul. Sénégal ba ñu doon wax état de droit justice ak Sénégal ba ñu doon wax euh, fondement yoo xamee ne ay république la lu bare bare ñàkk nañ ko ci. Je pense que ni un aspirant. ba pare di jiite parti bu toll na Pastef am kàndidaa te am baat ci biir këram bu génnee kàddu yu mel noonu dina dalal xelu ma Masamba ak ma Mademba dina wane ni aa lii de moom la ñuy xaar ci njiit ci Sénégal ndax kat arab dafa ni saydul qawmu xaadamahum nee na sangu mbooloo mooy seen jaam kon ki nga xamee ni dafa jekku jéggale ma ngay jëf jëfi xadimu rasul moom ma nga xamee ne Cheikh Ablaye daf ko doon way naan ko ku fi mos jekku jekkali yow rek yaa fi jekku jéggale ku ñëw ci yow nga àggale ci laaw buur bi ma tëggam rançon wu jàmm dafa am solo ndax njàmbaarte te dëgg dëgg du daar kurpeñ du mën a bocc si du mën a saaga. parce que askan wi ñu ngi xaar li nga xam ne moom mooy réconciliation. dëgg dëgg parce que conflit bi dafa yàgg en fait. gis nga jàmbaar dëgg dëgg dëgg acte courage. bi tax ñu naan acte de courage mooy bis bi nga demee ba lépp yomb si yow nga war a mën a jekku koo xamee ne daf la fitnaaloon démb def ci moom lu mat sëkk te kenn du ne mbuu nga mën a fayonte ba dugg bu avocat nga fàttaliku ni yàlla moom moom nguur te ku mu ko dénk rek kóolute la charge la mission la mm-hmm. pour que nga am une mission par rapport ak sénégalais yi parce que bu ñu bëggee defar réew mi il faut que ñu defar jikko doomu aadama yi xel yi ak xol yi gis nga ki la jiitu ak ki lay jiite si ni muy doxalee rek si ngay commencé jàng ngay jëf Sëñ Tuubaa dafa ni euh, mbooloo yi ñu ngi leen di natte ki seen i njiit nee na ku aju si ku mat rek dal di mat ku aju si ku manqué dal di manqué mais boo amee njiit dès le départ mu ne ah justice maanaam loo xamee ne day tegu ci yoon duñu la bunduxataal duñ la ñàkkal kersa dañu xotti sa orma waaye li nga xam mooy àq ak yelleef yi ak wareef yi nekk ci réew mi dinañ ci jaar ak ku mu mënti doon du ñu fayonte maanaam diw def na ma démb moo xam la muy def baax naa mu baaxul tey jëkku naa damay fayonteeg moom loolu buñ ko dàqee ci réew mi dinañu delloo waat confiance te confiance dafa baax ci nation pour consolider ko dafa baax ci économie pour rétablir euh, euh, bon fonctionnement wu bon fonctionnement wu mécanisme yi ndax économie du daw mukk mm-hmm. te climat de confiance amul mm-hmm. ndax investisseur du nangu investir fu jàmm amul euh, borom xaalis du nangu génne kopparam fu jàmm amul on a besoin de ça et tey le premier défi mooy que ni jàpp nañu ni euh, bu jomay la dafa war a simb mbubbu Bassirou militant Pastef doon bas Sénégal mm-hmm. nekk bas boo xamee ni day xool doomu Sénégal yépp comme njabootam tëdde njaaxaanaay te boo bëggee def noonu dëgg rek muy justice moom nga mën a jël lal ko si diggante doomu aadama yi wala fii dañuy defe ni nag moo gën a jafe mais moo gën a yomb mhm. ndax mooy permettre chaque citoyen xam règle yi xam nan la ñuy doxale ndax ñëpp mën a yem et je pense que ni message bu mel noonu c'est un message extrêmement fort mhm. pour consolider waat aspiration yi ñu am pour tabax suñu réew pour yëkkati ko pour jox ko rayonnement bi nga xam ne war na ko am ci Sénégal gi nekk mhm. alors c'est important ji bi euh, ñu avancer un peu ci li nga xamante ne moom moo xew fële ca cour suprême mhm. ndaxte gis nañu ne euh, euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa PDS jotoon nañu dugal recours tey Sénégal yëpp di xaar élection parce que sànq wax nga ko sa biir wax dañu dem ci benn rendez boo xam ne peuple bi waru ko rate ak ki nga xamante ne moom la jàpp ni war na ko mun a fal ñu bëri toogoon ci xottu nen euh, parce que ñu ngi doon xaar euh, cour suprême statuer li nga xam ne moom mooy euh, recours boobu ñu dugaloon ngir attaquer le corps électoral tey mu rejeté ko ba pare maintenir date boobu mun nañu jàpp ne actuellement apaisement am na et que ñu xool naka la ñuy avancer pour génnee Sénégal ci impasse bi mu nekk. xam nga impasse bi moom il faut dire que ni rek lu jik njàll conseil constitutionnel. mooy njaati. lu tax nga joxoñ ko baaraam tuuma. parce que ñoom la ñu sas pour ñu organiser. waaw suñu élection. Mhm. ñoom la jox mission pour ñu examiner ay candidature ñoom lañu jox pour que ñu dalal xelu sénégale yi ni képp koo xam ne jox nañ la cutis pour nga nekk candidat. Mhm. amul benn sikk sàkkani xool nañ la sur anam yépp ba nga xamee ni valable nga pour nekk candidat. Mhm. kenn puusu la kenn pistonné wu la kenn dimbaliwu la kenn nëbbalu la. dama war a dox aussi góorgóorlu ba képp koo xamee ni génne nañ la ci mu wér ci kanamu sénégalais yépp ni c'est avec raison lañ ci génne mais loolu nekkul tey ci ñun ñi bokkoon ci spolié yi génne nañu ay anam ak i mille et une yu war a tax nit ñi gis ni vraiment ñii fiñ ñu teg ak nit ñu bëgg a doxale mbir mi jàpp taxawul ci yoon jaarul ci yoon et ce n'est pas comme ça à mon avis que la ñu war a lijjantee réew mi war a tekk ci li nga xamee ne mooy charte yeeg doxalin yi mm-hmm. processus boobu moo ñu topp moo ñu topp ba tey jii euh, recours yi nga xamee ne moo nekk ci con si mm-hmm. et je pense que ni gis nga Sénégal mm-hmm. suñu bëggee mu nekk état de droit il faut que ñu xam ni sénégalais bu mu mënti doon que mu riche walla mu pauvre que mu bare ay nit wala mu néew nit doomu Sénégal la dafa am ay àq ak ay yelleef il faut que sénégalais yi xam ni ñi nga xamee ne ñoo yóbbu recours ci cour suprême dañuy exercer seen droit ndax mënuloo nekk ci réew réew moom garantir la say droit ba pare nga am acte de candidature boo def ñu dàq la te nga jàpp ni yow li ñu la dàqee teguwul ci yoon ñu ne doo ko fi jooyee doo ko fi waxee mm-hmm. c'est pas comme ça qu'on règle un pays ce n'est pas parce que ñun ñenn ñi dañoo bëgg dem ci élection par force que ñi nga xamee ni dañoo bëgg a xeex pour que seen droit ñu delloo leen que ki son dans le tort et qui n'ont pas le droit de le fair je pense que ni loolu aussi bokk na ci li ñu war a delloo siwaat mais ay la yeewoon tey jii y une décision du conseil de la cour suprême mu neex mu naqari moo wadd si suñu kaw mhm. comme yeneen yi nga xamee ne jóge woon na ci conseil constitutionnel mais je pense que pour l'histoire du Sénégal il va falloir ñu révisiter waat lii nga xamee ne mooy conseil constitutionnel ndax depuis deux mille ba tey jàpp na ni chaque fois bu ñuy dem ci ay élections dinañu far dinañu neexal dinañu dugal ci ay situation hmm. ba fin ba nag ñu génn ak seen ay loi ak seen ay décision bëgg gëm gëmloo nit ñi ni ils sont dans le sens de la construction tey yi bu ñu nax daanulee en 2011 c'est un conseil constitutionnel sénégalais moo légalisé candidature Ablaye Wade. Hmm. quand bien même qu'à l'époque ñu ñëpp ñu bari su ñun jàppoon nañu ni candidature boobu amul droit. Hmm. en 2019 c'est ce même conseil constitutionnel moo jël Karim wàdd ak ay ñoom bëggaan ñu bare ciblé leen génne leen te mënumaa gëm am réew boo xamee ne dañ koy teg ci yoon ñu am ay teg yoo xamee ni saa yu ñu ñëwee ci élection présidentielle ak noo mënti demee ñu fët leen génne leen ci biti. da nga jàpp ne mbir mi acharnement. non am na ci il faut que il faut qu'on soit réaliste il faut qu'on soit sérieux aussi mm. xam nga. Mm-hmm. parce que am réew dafa du caaxaan ndax am na kanam yoo xamee ne amaana quel que soit les efforts yu ñu fournir dinañ leen wutal koleel leen benn motif ba pare génne leen ci mm-hmm. te loolu tabaxul réew mi parce que en dernier ressort il faut faire confiance au Sénégalais. est-ce que ñun war nañu mën a accepter élection yoo xam ne un acteur wala des décisionnaires dañuy am capacité cribler nit ñi seet kuy jàll ku dul jàll non pas sur des critères yu loi bi wax mais sur des critères autres bu fekkente ni loolu am nañ ci capacité boole ak soupçon yi am naam amul ñu bëgg dem ci ay élection jàpp naa ni ki am fitu trafiqué ba yegg si foofu suñ ko toppatoowulee surveiller wuñu ko comme du lait sur le feu bu ñu demee ci résultat yi mën nañoo betteeg loo xamee ni boo boobaa suñuy bët rek la ñu amee pour jooy te gënul ci réew mi. et mhm. on ne doit pas accepter de construire un pays dans cette dynamique-là. Les Sénégalais son les seuls souverains. Il faut qu'on leur fasse confiance. Il faut que nous déloions. Nous ne comptons pas de Conseil constitutionnel. Tu y allais simplement. ña fa nekk duñ la sonal dañuy seet conditions yi naka mu gën a rafete pour que nga mën a jàll parce que jamono yooyu kenn sponsorisé wul woon kenn xaalis barewul woon comme ni mu bare nii et pourtant on n'en avait pas beaucoup de candidats mm ce qui veut dire que ni quand on manque de sérieux quand on est dans la corruption quand on est dans la falsification yu mel nii rek la ñu mën a am mais cette page la il faut qu'on la tourne et j'aimerais bien que ñu tourne ko pour que ñun sénégalais yi ñu xool nag lii nga xam ne moo nekk suñu kanam muy élection yi ak lu ñu naqari naqari naqari ak lu mu métti métti et je pense que moi j'en fais partie des victimes je pense que ni tey jii li gën a am solo mooy su élection naree am te jàpp nañ ni dina am mooy ñu góor góorgóorlu ba rupture bi ñu soxla ci réew mi mu am ñu bañ ko tronquer ñu bañ ko dévier te mu doon koo xamee ni ci démbam ak teyam dina mën a porter espoir bi nga xamee ni moom la Sénégalais yi am te mu jaral leen depuis 2000 ou depuis les indépendances ou bien avant même ñuy xare di xeex pour que Sénégal mën jot boppam assumer responsabilité am liggéey pour ci mën a jëm suñu kanam ndax quoi qu'on puisse dire am nañu ay défis yu jiggi dayo yu nekk suñu kanam. Mhm. Oh, pétrole baa ngi fi leneen a ngi fi. te dëgg-dëgg nag mag du teeyal ndoxam ba pare nag keneen jógee ca bitim réew ñoo naanal ko ko. Mhm. loolu rafetul si ñun te mu neex ñu mu naqari ñu am na ñoo xamee ni bu ñu sàgganee dinañu bàyyi ba ñu teeyal suñu ndox ñoo naan ko suñu kanam ba pare dem seen yoon. alors président man maa ngi ñëwaat ba tey ci wàllu waxtaan ndaxte maa ngi dégg ci see biir wax day mel ni waxtaan bi lu la ñor la te déjà amoon nañ waxtaan bu ñu def amaat waxtaan bu ñu def mais en tout cas man ma ñëwaat ci sa ralliement ci. Euh, coalition parce que bu ñu dem ci élection leader yi ku nekk day dem ci benn coalition pratiquement pour euh, gis ci boppam dem jàppale benn candidat bu dee bokkul alors nga nekk ci coalition Diomaye euh, président mais déjà ci sorti wu Ousmane sonk ak Bassirou Diomaye Faye ñu ngi mel ni ñu insisté waat ci euh, dialogue bi dañoo mës resté ci seen constance maanaam di wax déedéet euh, du ñu dialogue benn yoon ginnaaw boo jëlee fetal teg ko ci suma bopp alors ci dialogue boobu président yow yow nga bokk à deux reprises ci ay waxtaan déjà ndax yaag sa allié yi bokk ngeen ni ngeen di xalaate ci wàllu woowe non xam nga li am solo ba am solo mooy que ni ñun ñëpp ay acteur politiques lañu. Mm-hmm. te ku nekk euh, selon sa expérience ak sa vécu. Mm-hmm. ngay analyser et ngay positionné woo. Mm-hmm. moi je pense que nii boo xoolee tey jii Pastef euh, ak euh, déclaration Ousmane Sonko di nga xamee nii am na beaucoup d'évolution. je pense que ni aussi war nga mën a comprendre li ñuy wax naan man de du ma négocier <laughs> ak ku jël fetal tekk sama bopp parce que loolu du négociation ñëpp xam nañu loolu <laughs> euh, man mi nga xamee nag kenn tegul fetal ci sama bopp je <laughs> pense que ni war naa mën a wax ak nit ñi mm-hmm. surtout bu fekkente ni yàlla dimbali na ma ba ganaaru kenn nenu ma je pense que ni aussi su fekkonte ni kilifa gi nekk ci bopp réew mi jëfe woon na le le le le le le vingtième ah li ñu doon wax ca dialogue ba amaana kon du ñu am problème bi parce que je pense que ni euh, magum waxoon naa ko moo gën fuuf magum xamoon naa ko et j'avais pris sûrement la responsabilité d'alerter parce que damaa gis loo xamee ne bu sottee du ñu amal njariñ même si j'en suis victime aujourd'hui mm. mais enfin li ci am solo ba am solo mooy mm. il faut que ñu xam ni euh, Pastef ak ay leaderam mm. mënuñoo bañ a wax ak li nekk ci biir réew mi ndax ñun ñëpp ay acteurs politiques lañu dañuy aspirer exercer les plus hautes fonctions de la république. Mm-hmm. te Cheikh Abdoulaye daf ma daan wax ni boo waxulee koo jéppi doo am koo waxal un président de la république ou un acteur de premier plan bu waxuleeg sénégalais yi bu waxuleeg ñi àndul ak moom bu waxuleeg opposant am wala bu waxeelee ko contre warul du am ko waxal te la mm-hmm. démocratie c'est de la discussion mm-hmm. c'est des échanges et souvent avant ñu yegg si si vote il faut ñu waxtaan il je pense que ni loolu waruñu koo daw et dafa war doon une règle mais léegi préalable yi ko yàq moom la ñu war a dindi mooy injustice mooy jaay doole mooy nappaate mooy neexuma la rek nga jël ni ma ràpp ci kaso bi yooyu je pense que ni préalable yooyu bu dañee la règle dafa war a doon entre le président de la république et son opposition ay passerelle dañu war a mën a nekkul nekk dama lay renvoyer ci sama livre bi ma defoon ci assemblée nationale maa ngi ciy def benn proposition nii normalement su député yi déggoon daaj war na ñu xam ne sur cent pour cent wu dossiers yu ñuy traité vingt pour cent yi rek moo leen di opposé politiquement soixante dix pour cent yi si des yëpp ay éléments de société la ay bëgg-bëgg sénégalais yi la suñ doon def ñoom chaque mois président du groupe yi dajaloo ci benn dîner wala benn añ ku nekk indi sa bëgg-bëgg li nga xam ne moom nga bëgg a indil te amul benn connotation politique wala àndul benn antagonisme je pense que ni mën nañu am ci convergence ay pro ay question yoo xamee ni mën nañ ko gérer ndoo ensemble mm. dana la génneel benn problème mooy la tyrannie bancaire par exemple te jii boo nekkee ci benn banque bëgg fa jógee dem ci beneen banque fit na dul jeex ngay am ngay laaj euh, Sagna moom mi nga xam moo nekk ci banque yi mi ngi si reyante bis bu nekk di ci wax et je pense que ni dossier yu mel noonu euh, normalement au-delà de l'opposition ci des problèmes politiques yi députés yi war mën a am war nañu mën a di waxtaan di diisoo Il en sera aussi de même dans une bonne république un président de la république de temps en temps comme ni ko yeneen réew yi di defee dafa war a am capacité woo benn leader ci opposition woo baneen woo beneen kat échanger ak ñoom ci yenn mbir yi benn dina leen tax ñoom ñu former seen bopp ñaar dina leen tax ñu xam ni fonk yëg nañ leen ki seen taxawaay ci réew mi et ça peut enlever énormément de d'esprit conflictogène ci relation yi ñu mën a am parce que tey jii li nga xamee ne mooy conséquence su parparloo gi nekk ci réew mi ak jaayante doole mooy xajale nañu sénégalais yi tey jii da ngay nekk ci camp bi baax selon ña nekk ci camp bi nga nekk ci beneen camp ba bon selon ñi la contre et cet esprit là c'est pas le Sénégal suñu bëggee am une nation buy taxaw les couloirs du dialogue et de la concertation waruñu ko rompre benn yoon te dañoo war a xam ni ku mënti doon président de la République nekkuloo ko ci sa alal suñu nga nga yor kër ga ngay nekk c'est ça nous appartient à nous les Sénégalais bu ma àndeek ak yow bu ma ànduleeg yow c'est mon bien te euh, sëñ Abdou Aziz yal na yàlla yokk leeram maam Abdou daan wax wax ju am solo nee na boo bokkeeg nit benn mbir mu jóg di ko yàq fulla googu mu am di ko yàq amal fulla gu tol noonu koor que ci yàq googu mu koy yàq et c'est pour cela que je pense que il y a une évolution très positive si seen taxawaay ak seen gis-gis Euh, c'est une excellente chose euh, je pense que ñu jaar ci coono yi je pense que ni ñoom dinañu wuute lool seen comportement ak seen opposition dina wuute lool comportement bi nga xamee ne subir nañ ko ak lii nga xamee ne mooy pouvoir bi fi nekk et on a besoin de ça pour avancer parce que suñu ko amulee défi développement yu ñu am défi sécuritaire yu ñu am euh, défi de cohésion yu ñu am duñ ko mos a mën a réaliser te uh, bu bitim réew taxawee siñ la fag fang ñeneen taxaw siñ la fang terroriste yi taxaw siñ la fang boo góor góorgóorluwulee ci affaire boobu soo amulee un minimum de cohésion à l'intérieur wallahi du ngeen mën a def front. ma dugal la feneen foo xamante ne ni xëy na bon avec euh, permission wala la mooy mooy ci deux mille vingt et un wala ci quinze dernières années yi li ñu dund metti na mais surtout deux mille vingt et un deux mille vingt et quatre ñu tegal ñu benn loi d'amnistie est-ce que bi nekkoon na di ko xaarandi déjà maa ngi ñëwaat ci sa allié moom nee na moom mosul nekk demandeur de quoi que ce soit. xam nga gis nga affaire boobu euh, chacun dafay défendre camp bi mu nekk ci taxawaayam. Mm-hmm. mais am na foo xam ne bu fa tollee il faut que ñu ñu nangu dépasser dama sama benn doyen bu am solo. bu may wax ni ma Sénégal léegi yàqu na yàqu goo xamee ni ku nekk foog nga am loo wan on n'a pas parce que dans le conflit bi ñu am entre l'opposition et le pouvoir mhm. dafa am des forces de défense et de sécurité yu nekk ci diggante bi mhm. te force yooyu ku fi mënti ñëw ku nekk ñooy nekk ci sa gannaaw pour jàppale la mhm. tey jii li muy neex yëpp nga xamee ne bu Ousmane génnee Diomaye génn Sénégal yëpp wër leen bu yàlla dogalee Diomaye nekk président de la République te moom lañ koy ñaanal ci at yi muy nekkee président de la république dina am bis boo xamee ni mu neex ko mu naqari ko dina soxla force de défence et de sécurité yooyu pour mille et une raisons et te conflit bii ñu am nii c'est vrai que ni de part et d'autre am na ku si nekk ay dérapage yu ñuy def mais jàpp naa ni ñi ci ëpp li ci faatu c'est si confrontation ak police wala ak gendarmerie lañ ko amee est-ce que dañuy jël risque ni dañu koy régler par force fayonte ko par force ndax élément bi loxo bi ngay régle par force mooy dellu soit bu ëllëgee di soxlawaat ces même force de défense et de sécurité c'est pourquoi dans cette perspective là jàpp naa ni loi d'amnistie bi mën na am njariñ parce que dina mën a permettre ñu régler yenn problème yi à la seule condition que avant ñuy amnistier ñu régler condition de compensation yi nga xamee ne de ndàmpaay yi nga xamee ni dëgg-dëgg ñi nga xamee ni gaañu nañ ci ñi si ñàkk seen bakkan famille yi nga xamee ni am nañ ci ay morts ak blessé ñu mën a seen nañ leen di jëlee en charge mais surtout et le plus important mooy képp koo xamee ni ab xaleel la wala mag sax boo xamee ni tëj nga ko si biir kaso pendant onze mois war na am cellule boo xamee ni psychologique boo xamee ni dafa war a gratuit pour prendre en charge nit ñi parce que traumatisme la si psychose la que nga mën na am sa confort biir kër xëy suba ñu dugal la si biir paquetage pendant des mois et ça ça peut tuer une personne euh, mën na koo mën na koo déstabiliser surtout loolu mm. et je pense que ni bu loolu weesoo euh, ñun alal du faj euh, dee mais gàcce lay faj mm. alal ji ñu am si suñu biir réew buñ ci jëloon lu takku dàmpe ko ñi si ñàkk seen bakkan waaye seeni waajur wala seeni ay doom ak seeni ay jabar wala seeni ay borom kër jël lu takku dàmpe ko ñi ci gaañu wala ñi ci am laagu jéet loo xamee ne mënees nañ koo rattraper alal ji ci yàqu je pense que ça peut être une thérapie globale beneen bi ci des moo di bul fàtte ni Afrique du Sud et dañoo lutter pendant vingt sept ans te boo seetee massacre Sharpeville cinquante neuf personnes ñoo ci faatu ci benn soo nga seet Soweto am na bis boo xamee ni xanaa ni vers les années soixante seize yu demee noonu plus de cinq cent et quelques personnes faatu nañ ci benn jour et pourtant Mandela a eu l'intelligence am na xam ni pour mu am une nation arc-en-ciel pour que mu mën a construire à partir des ruines de l'injustice de l'apartheid il fallait que ñu accepter cohabiter avec le pouvoir qui était le pire des pouvoirs en Afrique parce que bari na ay procès yu graaw yoo xam ne nit ñi dañ leen pendre ñii dañ leen fusiller ñii dañ leen a exécuter de manière sommaire et cetera mais il a su xam ni euh, genn wàllu kasara moo gën kasara gu mat sëkk te fii ñu toll nii bu ñu bàyyee nit ñi ñu dem ñu enclenché ay procédures judiciaires ak tribunal ni mu guddee ak avocat ni mu seere déjà nit ki am traumatisme onze mois nga bëgg di ko jëlalaat deux ans trois ans mu nekk ci benn situation boo xamee ne xamul nan lay demee mën na dem sax ba cinq ans jël appel ngeen di après ngeen dem cassation mu doon un long cycle boo xamee ni day mujj sax doon corvée doon beneen punition ci kaw punition bi mu soog a taxaw et c'est pourquoi je pense que ni il faut que de manière raisonnable et de manière sûre non seulement ñu rechercher la clarté dans cette affaire-là mais en même temps ñu jéem defarante si suñu biir defarante boo xamee ni dina may le nouveau pouvoir mu mën a avec force et autorité exercer via la police et la gendarmerie sur les missions régaliennes de l'État mais aussi permettre à la nation mu mën a ensemble dans une thérapie globale penser blessures yi dimbalante muñalante parce que bu ñu ko defulee du ñu mës a jéggi ndax du ñu fi baal loo xamee ne dina ëpp wala dina yegg le centième de ce que l'Afrique du Sud ou les Sud-Africains ont pardonné au régime de l'apartheid même si foofu boo fa demee dinaan la dafa am vérité et réconciliation mais vérité et réconciliation boobu xam nañ ni artifice la rek mhm. artifice la rek pour donner aux uns et aux autres exutoire ñu mën a génne li nekk seen xol mais la vraie thérapie mooy volonté de pardon boobu nga xamee ni def nañ ko te Mandela quoi qu'on puisse dire euh, avant que ñu koy génne Robben Island discuter na pendant des années du du lu ñaaw c'est normal parce que euh, beaucoup de pouvoir parfois bu ñu amee seen opposition mënuñu discuter ak moom dañ koy naan ciix ne ko ràpp ci biir kaso bi parce que loolu par force dina dinañu discuter ça ne veut pas dire que ni la personne dafa dem corrompre boppam dafa dem négocier wala mm-hmm. dafa dem jaay boppam non non il s'agit de notre pays il s'agit de personnalités qui font la vie politique de notre pays foog ñu toog ñu waxtaan. tamit également à chaque fois bu ñu jàppee un leader. boo xamante ne ni peut-être aspirer na ngir jiite réew muy am ay après génn bi di am ay ay protocole ay waxtaan ci suuf alors que même bu fekkee leader bi nekk ci prison bi day bañ mais pourquoi muy am waxtaan lan la. xam nga waxtaan bi moom mënta ñàkk ndax tous les conflits du monde ci foofu la ñu teere yi li yàq affaire bi fii rek mooy ñaaw njort bi ak manque de confiance bi am entre les acteurs mais mënul ñàkk deuxième guerre mondiale fa la teere ji première guerre mondiale ji conflit bu ndaw boo fi gis à la fin foog nit ñi toog di waxtaan mais foofu ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi peut euh, suñu bëri dañuy wax ne euh, waxtaan ak moom parfois sax euh, ça vaut même plus la pen parce que tout simplement saa yu leen waxee tënk dangay gis ni le contraire lay def dafa dem ba mel ni genre ndaxante seen biir est-ce que du loolu moo bien sûr loolu mooy compliqué situation bi moom laa la doon wax léegi nii lañ doon wax te ma wax ko ci kanamam wax ci kanamu sénégalais yi jëm ci lan moo waroon doon responsabilité amaana bu ko defoon sa jamono yooyu xëy na du ñu nekk ci situation bi mais li ma la wax aussi ni la boo waxulee ko jéppi doo am koo waxal il s'agit de notre pays là la suñu réew la suñu réew la est-ce que parce que le gars est défaillant wala boog am na manquement wala boog amul kaddu que dañ ko war a bàyyi lu ko neex mu def ko wala boog mu ñu bàyyi ko muy dérouler de midi à quatorze heures bu ñu waree rayante ak moom rayante nañoo ak moom mais on ne peut pas être éternellement là-dessus bu ñu demee ba nga xamee ni toll nañu ci foo xamee ni euh, waxtaan moo fi jot il faut que ñu ñu def ko te ñu am confiance que ni euh, nit ñi la bay doon dundee ba sax sikkim bu goree dina continuer ak moom ba faatu ñun waxtaan bi de mais euh, waxtaan woo xamante ne ni yow boo génnee comme Euh, fii nii Ousmane Sonko ñu dégg ko moom lim ñu wax moo di ne envoyé nañ ko émissaires yu bëri ñu seet si ko ci prison bi dem nañ ko bëgg koy proposé naan ñu reporter élection yi pour moom mu mun a bokk ak Karim ah ne si bi ak leneen ak leneen donc mais ki sabab waxtaan wi di njiital réew mi moom mosul génn benn yoon donc ñun bi muy génn di reporter élection yi sax tegalal nañu fi ay ay article ak yu kenn xamul pour wax ñu justifier li mu bëgg a def man foofu laay waxee. xam nga ji war a xam ne en même temps. Euh, charge wu président de la république. Mm-hmm. dafa di charge bu complexe. Mm-hmm. Mm-hmm. cëru jiite réew. dafa complexe. xam nga am na li ñu naan euh, conseil de sécurité wala réunion de sécurité. <laughs> effectivement effectivement boo xamee ni ci ministre yi. Euh, ministre de souveraineté yi rek ñoo koy teewee autour du président de la république. et des hauts gradés de l' de la gendarmerie et des personnes yi ñu concerné. te yow wér na ni la foofu lañ koy wax yëpp yëpp. intérêt Sénégal sécurité Sénégal mais boo naxulee sa bopp di nga xam ne dina am benn bis boo xamee ni foog président bi nekk saay saay dëgg pour mën a sauver réew mi parce que loolu aussi ci mission président la république la bokk am na ci lu bare loo xamee ni peut-être que dina ko def te li gën su ñun mooy ñu bañ ko xam mos naa déglu Hollande bi mu génnee ci président am euh, bi France dee xeex ci wàllu terrorisme wax ci kanamu seen àddina yëpp ci kanamu média français yi ni moom autorisé na exécution wu ay citoyen français yu dem nekk ca Daesh ça peut sembler bizarre qu'un président de la République bëgg më mën a décréter la mort d'un citoyen de son pays mais ça peut se comprendre quelque part aussi sur des questions de sécurité c'est pourquoi man ni leen il faut que ngeen xam ni nit ñi ngeen di fal di leen jiite dina ci am lu bare loo xamee ni ci biir kër gi ak ci secret yi biir kër gi il faut que ñu am mat gi am hauteur bi am élévation bi pour mën ko gérer avec responsabilité dafa di tâche boo xamee ni souvent nit ñi li ñuy retenir rek ci président de la république mooy pimpon yeeg ak euh, oto yeeg ak gendarme yuy tooj mais li tax Barack Obama biñ ko falee trois mois après bopp bi weex tàll loolu mooy président de la république c'est-à-dire que ni lu jafe la maanaam dañ la mettre dans un confort extrême pour que nit ñi mën a nelaw pour que nit ñi mën a am jàmm malheureusement en Afrique nag jamono yi nga leen mettre dans un confort extrême ñoom dañuy far di nelaw bay xandoor fàtte seen bopp fàttewaale la mais mais il faut que ñu xam ni àddina fii mu toll nii du gàcce du jaay sa bopp du wor sa askan du wor sa ligne politique nga am adversaire politique donte président de la république la mu ñëw fekk la fu mu la tëj waxtaan ak yow nga déglu ko wax sa fulla wax sa fayda continuer di défendre li nga war a défendre continuer di participer ci ce combat loolu ab dof wala ku ñàkk dégg-dégg rek moo koy jàppe ku jaay boppam wala ku ku ku ku def loo xamee ne du naka su dul noonu en réalité il y a et je l'ai écouté ce après-midi bi muy wax euh, am na ci loo xamee nii ku mu neex ko mu naqadi réalité la lu combat bi tar tar tar tar bu ñu fàtte mukk ni am na ay xale yoo xamee ni dañoo bëgg Pastef wala ñeen ñi sax ay citoyens yoo xamee ni bokkuñu ci parti boobu li ñu ko def naqari leen tax ñu génnoon di manifester ñu jàpp leen dugal leen ci situation boobu mosuñoo xam ni waroon nañu mën a yegg foofu et mhm. boobu bis buñ ci yokk wala bis buñ ci négliger ñu continuer see yegg kon am na si ko war mission wam bi mu am pour dimbali askan parce que un vrai président de la république et un homme d'état dëgg dëgg taxawaayam mooy sécurité citoyen bi mooy jàmmi citoyen bi mooy mooy mooy mooy qualité de vie wu citoyen bi xam nga tey jii moom fa ñu koy denc daf lay wér ni si confort lay nekk relatif mais am na xale boo xamee ne bu ñu ko jàppee dugal ko ci chambre boo xamee ne dana fa fekk ay deux cent ponkal xale boobu sànq nañ ko est-ce que am nañu droit ñu amee possibilité génn ko ñuy naan non man duma nangam man duma nangam non on ne peut pas se permettre cela parce que simplement c'est des faits c'est de la souffrance c'est de la réalité et en plus yow nan ngay def ki nga xamante daf ne la ràpp ci biir kaso bu bëggee wax ak yow fooy jaar moo jaaxal nit ñi ah, non il faut que aussi nit ñi nit ñi tamit bu ñuy réfléchir ñu xam ne ki la xamee ne moo lay ubbi pour nga génn mhm. moo lay moo mooy organiser journée mooy seet ndax nit war na la seet si du seet kooku bu la seet see bu ñëwee wax ak yow nooy def dangay ngay fàtt sa nopp fàtt sa kile c'est foog nga wax ak moom mhm. surtout ci réew mi la surtout ci sa combat la surtout ci say engagement la il faut que ñu xam ni un homme d'État doit s'assumer et s'assumer ce n'est pas toujours de si lu neex ce n'est pas toujours ci lu yomb mais parfois tu le fais parce que da am une vision beaucoup plus globale. Mm. boo xam ne day jéggi sa jëmm. jéggi say intérêt mais nga def ko parce que mooy sa responsabilité parce que au-delà de tout tu es un gardien et un une sentinelle pour la République pour les citoyens te loolu aussi mooy qualité wu homme d'État. je crois que am na solo donc jibi dañuy dem ci dernier point bi rek fi ñu ko fas yéene jeexale sànq wax na ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum sécurité Sénégal gaz ak pétrole daf fi feeñ te xam nga actuellement tous les yeux sont rivés te il va falloir coûte que coûte ñu chercher benn issue boo xamante ne ni ñun ñëpp dañuy sauver wu muy man di yow di keneen muy nappkat bi jaaykatu jën bi agriculteur bi donc ñëpp war nañu ut ensemble benn issue boo xamante ni euh, fa la ñuy jaar pour que tey ñu mën a sauver le pays. xam nga tey jii pourquoi élection yii man Cheikh Bamba Dièye ma ni damay jàppale Diomaye président mm-hmm. dama bëgg mu leer nañ mm-hmm. ni sécurité Sénégal protéger suñuy ressources may doom yi ñu am moyen yu ñu leen dimbalee pour ñu jox leen njàng bu baax liggéey bu mat taxawu way juri ci seen bëgg-bëggu kër ak dépense boo xam ne ni jafe na leen mooy préoccupation première bi parce que bu ñu xoolee si suñu sous-région bi gis nañu li xew Mali gis nañu li xew Burkina gis nañu li xew Niger xam nga ni tey jii suñu ancienne puissance colonisatrice yi amatuñu léegi sañ-sañu naan dañuy ñëw pour indi ay coup taaba wag yu demee noonu mm-hmm. mais seen bëgg-bëgg pour continuer duñu dominer pour continuer di ŋàcc li baax li ñu am suñu réew pour dem jëriñoo ko surtout que ni jamono ji dof la dof la ba dugg ci conflit entre euh, Ukraine ak Russie mm-hmm. du mos a dañ mooy chaque fois qu'ils auront les moyens pour mën a ŋàcc suñu ay ressources dem jariñoo ko duñu hésiter benn yoon comme mënatuñu ñu indil coup d'état wala mënatuñu indil ay coup de force lan la ñu am mooy dem dugg si suñu système politique interférer ci suñu ay processus de sélection pour mën a fexe ba candidat yi leen gën a favorable nit ñi nga xamee ne mais bien sûr ñi nga xamee ñoo leen gën a favorable nekk en pole position te ñun nag bu jaan dofee xulool mbokk ma nit la war a doon il faut que ñun ñu am responsabilité xam ni am na ñoo xamee ne jàpp na ni lu Sénégal am pour ñoom la et tous les moyens sont bons pour ñu mën a am la garantie que ni alal jii fi nekk balaa muy dem fenn ñoom lay jëriñ tey jii amatuñu amatuñu ay euh, lu fu ñuy jëlee gaz avec les pipelines euh, russes yi nga xamee ne la guerre en Ukraine yàq na ko mm-hmm. boole kaak tey jii Sénégal am fii gaz bu dul jeex te gis nga ni tey jii ci géej gi la war a jaar wala boog ci bu rivage bi pour mën a dem foofu te dina doon lu sécuriser donc ça intéresse les gens et pour que mu intéresser leen dafa war a doon loo xam ne dafa war a jariñ sénégalais yi je pense que ni tous les candidats am nañu mérite mais situation bi fii ñu toll ak élection yu jig gi dayoo yi nga xam ne dugg nañ ci war naa tax ñu fexe ba plus incertitude si fichier électoral bi plus incertitude si qualité wu ñi ñuy décider ak ñi ñuy arbitré ndax ñu ngi am ay soupçon ak ay accusation yu ci am loolu moo tax may ñaan képp kuy sénégalais compte situation particulière bi ñu nekk nii ñu def benn vote de raison benn vote boo xamee ni dinañu mën a indi lu rupture yi nga xamee ni moom lañu ñu soxla ci réew mi pour mën a indi transformation yi ñu soxla ndax kat euh, président Macky ñu ngi koy sant di ko gërëm mais day dem te garab gu tudd Macky Sall kat damaa defe ni ku fa for doom jikka amaat Macky Sall waaw ma garab gu tudd Macky mhm. ku fa doom jikka amaat Macky Sall <laughs> te lu mag def est-ce que bëggul wax bu sa dekkee daf ko war a bàyyi et je pense que ni tey jii su fekkee dañoo bëgg rupture dëgg dëgg dëgg quelles que soient les bonnes intentions mhm. des candidats de l'APR ou des environs ou de l'écosystème APR je pense qu'ils ne sont pas plus qualifiés que ñi nga xamee ni opposition pure et dure la ñu nekk mmh. day rejoindre li nga xamee ni xam nga moom am na si affaire qualificative yoo xamee di du doo mos am doo mos a muusawaane ba ma dugg si <laughs> mais li may wax man ay wolof laay wax ak sénégalais je pense que ni. bu ma paree xam nga président ku nekk dina xam li ma bëgg a wax. li ma bëgg wax <laughs> mooy lu simple la. nitu daal xam nga xam nga tey jii. wolof dafa ne ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee. Mhm. te dañoo nekk ci période boo xamee ni. dëkk bi métti na tar na jafe na waaw te bu saf neexulee aussi sàppali mënta neex il faut que ñu tukki nag il faut que ñu assumer rupture boobu il faut que mu doon rupture boo xamee ne bu sage lay doon bu intelligente boo xamee ne dinañu mën a indil transformation yi nga xamee ni moom la ñu bëgg loolu moo taxoon ma bëgg nekk candidat mm. bu ma nekkulee candidat damay seet groupe bi nga xamee ni ak kuréel bi nga xamee ni ñoo gën moom laa yaakaar ne ñoo gën a mën a porter idéal boobu sans arrière-pensée parce que moi je suis quelqu'un de très froid et de très analytique mhm. waaw li may wax ci xel ak xalaat toujours laa koy teg yaakaar naa ni hmm, yàlla dimbali na leen ba jaarale leen foo xamee ni xam nañu lu nekk ci prison xam nañu li nekk ci privation xam nañu li nekk ci injustice mhm. ba nga xamee ni defe naa ne lu mag def dee sa bu sa dekkee dootu ci mës sa dugg je pense que plus encore yàlla may na leen li ëpp ci citoyens yi jox nañ leen bopp te yaakaar nañu ni condition yooyu yëpp ak volonté de rupture ak esprit souverainiste bi nga xamee ne moom la ñu bëgg imposer ci réew mi pour mu mën nañu garantiral que ni alal yu ñu yàlla dénk balaa ka kenn di jariñoo ñun doomu Sénégal yi ñoo koy njëkk a jariñoo ba pare dàqul benn yoon ni war nañu collaborer ñëpp et je pense que dans cette perspective là et cette dynamique là daw coowal élection mooy képp koo xamee ni ndaw nga na nga góoru nga dem jëli sa carte kuy mag góor ak jigéen nga daw góor góoru jëli sa carte aussi te bu bis ba jotee ñun ñëpp nañu gaaw dem am itte ak pas-pasu voter et surtout voter à mon avis comme foofu laa féete mhm. pour le candidat bi nga xamee ni moom laa jàpp ni mën nañu dimbali ba ñu mën a am transformation yi ñu soxla c'est important pour le pays les Sénégal en a besoin et nit ñi sonn nañu dee nañu mm-hmm. ndax borom kër goo xamee ni da ngay gañee donte sax quatre cent mille la bëgg du luyee di fay deux cent cinquante mille boo si bëggee génn courant génn ci ndox fay ci jàngu xale yi lekk ci ça veut dire que ni précaire nga te ku fi am quatre cent mille ñu néew lañu ci biir réew mi sant diir ñeneen ñi nga xamee nag dinañ yeewu suba ba ngoon jot ci taaba taaba la ñu nekk mm-hmm. est-ce que xam nga ni tey jii borom kër dina yeewu suba ba ngoon jot te cin du tàkk ci biir këram ñii gobar jaasi la ñuy am maanaam dañuy añ tëbb ci reer et cette situation de grande souffrance la mooy la vraie problématique bi nga xamee ne moom la ñu war a gérer mhm. man jàpp naa ni il nous faut un homme politique ou des acteurs politiques yoo xamee ni dina ñu def seen bopp violence pour fàtte l'esprit politicien bi nga xamee ni moo tardel réew mi mhm. nga xamee ni tey jii boo jotee ci nguur gi nguur rek ngay xool te ji bi xam nga ni nguuru àndul ak démocratie nguuru àndul ak état de droit ndax mm-hmm. booy nguuru bëggoo ku ko wax bëggoo ku ko coow bëggoo ku la critiquer mm-hmm. loolu mooy expliquer retard yi ñuy am et je pense que ni il nous faut une rupture profonde et sérieuse pas une théorie parce que li euh, euh, chinois bi dana wax nee na ce que vous faites parle si fort qu'on n'entend pas ce que vous mm. parce que seeni i jëf ñoom bi ñu nekkee ci nguur gi. mooy doon seen témoin ci kanamu sénégalais yi. Mm. mais mënoo di jëf jëfin boo xamee ni moo indi désarroi ak jafe-jafe ak toroxte gi ñu nekkee indi ñu ñaxtu gi ñu nekkee. Mm. Eh, mu doon jëfi jaay doole jëfi parparloo jëfi féete gauche féete droite ba pare nag nga bëgg ñu théorie. ak théorie boo xamee ni euh, yow mi koy wax bokkul ak li ngay jëf. et c'est pourquoi ma ni li ngay jëf. moom rek moo am solo moo lay caractériser te seen jëf yi démb ak tey jii moo ñu indil situation bi ñu nekkee nii tey jii et suñu muusee tuuti je pense que ne dinañu seet faneen dinañu xool faneen et je pense que ni xool ci direction bi mu leen indiké ça peut être une solution parce que ñu ñëpp ñu jàpp ci liggéey pour que ñu génn ci parce que nos défis sont immenses. Euh, incha allah ndar laa ko fas yéene defee. ndax jàpp naa nii mën naa xettali ñi ma àndal ci modèle yu nekk mais foofee ma dëkk am mën naa fa am apport bu significatif boo xamee ni dinaa ko ci am maa ngi ci woo nag doomu dëkk boobee yëpp ndax ñoom xam nañu sama qualité ak sama yéene ak liggéey boo xamee ni defal naa leen ko je pense que ni gis nga Sénégal wax ju bare ak séddale xaalis du ko defar <laughs> non liggéey moo koy defar. léegi dafa am ñuy séddale xaalis non c'est sûr. Mm. tey te te dama bëgg nga xam ni. yàq nañu réew mi yàq goo xamee ni il faut que sénégalais yi xam ni pour que réew mi soppeekul liggéey tigi tigi liggéey bu wér bu wóor bu àndul ak benn caaxaan moo ko mënee di temps wu apprenti yi ak defal daaj beeg séddale xaalis bi dafa war a jeex non dafa war a jeex parce que ça nous a rien apporté indi lu ñu dara dara dara parce que tey jii boo demee ndar jàppal mool gi fitna yu dul jeex la moo tax sax immigration clandestine bi gën a am ndax bu mool amatulee dara jël gaalam yëpp ci ay xale yóbbu Espagne nga dem ci biir réew mi muy Fuuta ak feneen mbay ma doon dundal nit ñi téyetul kenn liggéey jafe na boo ko buggee boole nga gis ñi ñoo xamee ni nag dañ lay génneel alal yu dul jeex di ko fowee si lu dul si loo xam ne teguwul fenn ba pare ensuite ils se réclament comme étant les porteurs d'un grand changement boo xamee ne ki seen xel rek la nekk mais seen jëf wane ko benn yoon je pense que ni loolu aussi lu ñu war a soppi la ci réew mi suñu bëggee daal euh, jël Côte d'Ivoire def ko nawle dab ko jot ko raw ko jël Ghana def ko nawle jël Nigéria def leen nawle pour que suñu qualité de vie ak suñu euh, koom-koom gën a kawe seen bos je pense que ni ñun ñëpp ñoo war a takku et liggéey boobu du esprit politicien moo ñu koy defal c'est une vraie rupture de fond ci comportement yi ci gis-gis yi ci yéene yi et je pense que ni euh, yoon boobu moom laa leen di indiquer di ñaan yàlla euh, ñun sénégalais yi pour ñu garantir ko mooy que ni ñu voter massivement dans cette direction là pour que ñu bañ leen may benn opportunité benn capacité benn possibilité pour ñuy wëlbati wala ñuy dëpp loo xamee ne après fitna rek la ñuy indil si on veut économiser des conflits inutiles su ñu bëggee assurer une victoire éclatante mooy nañu mobiliser wu ñu ñëpp daw jëli suñu carte te voter dans le sens bi nga xamee ni mooy garantir cette victoire là bi nga xamee moom la ñëpp di xaar. merci beaucoup président donc euh, li ñu leen andiloon tey ci seen entretien spécial ni lay demee saa su nekk euh, balaa ñoo tàggatoo ji bi maa ngi lay jaajëfal. ko yemale tey yaay dirigé moo tax tey moom ma toog toogaayu <laughs> kuy kuy topp sa ginnaaw uh-huh. mais en defe naa ne bon Sénégalais yi mm, bi ñuy door émission bi ni ko président waxee eh, ñun ñëpp jàng nañu ci waxtaan bi ndaxte waxtaan moom boo ci jàngul defe naa ne des na moo tax moom toog eh, ñu mel ni moom dafay baax ndaxte uh-huh. saa su waxee rek luy jëriñ réew mi la donte ne maa ngi koy laaj yéen nii mu ngi naan ma mun a wax ba wax la <laughs> <laughs> moom moom moom yàgg nañoo defee plateau mais merci beaucoup en tout cas ci yow. merci mm. beaucoup ci moom merci beaucoup ak képp ku ñu doon suivre rek ci Sénégal 7 jaajëf. jërëjëf merci beaucoup donc ñu jaajëfal suñu invité tey muy président Cheikh Bamba Dièye ci waxtaan bi clarté bi mais aussi xam-xam bi yaakaar naa saa suñ la invité rek di nga mën a nekk à la hauteur pour nga mën a apporter ay réponses yoo xamante ni nii internautes yi nga xam ne ñoom ñuy suivre dina ci am satisfaction moo bàyyi la nga tàggatoo ak ñoom ba beneen yoon incha allah. xam nga tabax réew ak tabax une nation dafa yombul damay wax ni toujours ni Sénégal gii buñ ko bëggee tabax tabax bu wér il faut que méritocratie dellu suñu doom yi jàmbaare man liggéey am capacité donte seeni jur yi demewul noonu wala amuñu ku leen dimbali war nañu créer système boo xamee ne dina leen permettre ñu mën a dimbali Sénégal war nañu indi certitude de la sanction ko sénégalais yëpp yam ku wàcc mm-hmm. yoon doomu koo mën a doon ñu tegaat la ci yoon mm-hmm. et puis ñu dàq fi fen ndax sëriñ Tuubaa dafa wax ni bàyyi fen moo gën jàng alxuraan mm-hmm. bàyyi fen mooy tax nit war a fay euh, un quinze milliards ci ay impôts euh, deal ba fay cent million te loolu au préjudice des finances publiques la te yu mel noonu moom la ñuy dajale par milliers pour mën a créer gouffre bi nga xamee ni mooy justifier suñu sous-développement ak mm-hmm. retard yi nga xamee ni am nañ ko je pense que ni yooyu lu loxo def rek loxo mën na koo dindi mm-hmm. te fii ñu nekk nii dañoo nekk à la croisée des chemins mm-hmm. il nous faut que ñu gëmm am fulla am fayda def le choix qu'il nous faut encadrer choix boobu te nag am fulla yi topp ko pour que li nga xamee ne moom la engagé wu ak sénégalais yi mu matale ko et je pense que ni yàlla dimbali na ko te am na xam-xam moom Diomaye euh, du mag trop mais am na jaar-jaar mais loo ko ñàkk a ñàkk jox cër xam nga ni am na fulla am na fayda te am na suite ci li mu bëgg yàlla na ko si yàlla jiitu yàlla na ko si yàlla jàppale yàlla na ko yàlla xamele ràññele ko ba mu jàng ci ñi la daaneeloon nguur yi njëkk yi ak président yu njëkk yi mu moytu loolu xaritu nguur yi xaritu nguur yi moom ku mën a ñëw rek ñu ànd ak yow Euh, ils viennent toujours au secours de la victoire ils son jamais là pour euh, véritablement créer condition de transformation yi nga xamee ne moom la ñu soxla te yaakaar naa ni réew mi di réewu Cheikhina al Qadim ak Sidi Haj Malik képp koo xamee ni yàlla def na si yow ci se responsabilité nga war a doon président de la république c'est que déjà am nga jukko yi am nga capacité yi am nga aptitude yi il faut que nga gëm sa bopp rek avancer te ñi war a ànd ak yow ànd ak yow ñi la war a jàppale jàppale la te yàlla tax ñu ànd àndandoo ñun ñëpp delloo si waat Sénégal bi ñu bëgg jubale xol yi liggéey suñu réew pour que mu doon une des premières nations africaines et un pays phare boo xamee ni day wane ay manoorem ci domaine bu mu mën a doon et c'est ça le destin que le Sénégal doit avoir ndax man li ma gëm mooy Sénégal euh, warul des gannaaw ci dara ndax yàlla ormal nañu ci anam yu mu mënti doon. Mm-hmm. te ñaan ñaan yàlla mu defal ñu élection jàmm. ñu dem ci si jàmm ak salaam. te ndam li doon ndam lu leer nañ. Mhm. loo xamee ni dinañu jubale. Mhm. waaw dinañu jubale parce que yenn confusion yi on a déjà que trop souffert. Mhm. mais nag loolu mooy dernier bataille yi nañ ci dem fulla te vigilance yi taxawu ci dans le respect parce que même ñi nga xamee ni dañoo féete beneen boor bi et après il faut composer avec eux pour may ñëpp seen chance ñu participer ci développement réew mi. merci beaucoup je crois que c'est important message bi jàll na et que euh, sénégalais yi dégg nañ ko te dinañ ko jëfee bu baax a baax saa su nekk nii lay demee euh, Sénégal set nee naa leen de leen topp télé bu wóor bi bi leen di jox information à temps réel di jaajëfal équipe bu terrain bi temps yi xam naa ni sonn nañ euh, waal yi actuellement. mu ngi ci terrain bi ñu koy jaajëfal bu baax a baax Matar ah tey nag dama leen daw ñëw yoxu su ñëw si ji bi euh, pour mun a souffler un peu mais en tout cas lépp loo xamante ni xew na ci campagne bi dinañ leen ko toppal incha allah di jaajëfal équipe pour régie bi nga xamante ni euh, su baaxee ñoom la su normalul rek ñun ñu toog fii la euh, di leen jox rendez-vous à très bientôt ngeen jëf.